Nous attaqué ko sax défendre Nous nga gis traité les nervis de Ousmane Sonko def nañu lii nous nañu ce que nañu veux dire Sénégal L'ol nak. su ni la war a ko duma ak digal demal sa bop ñu la du ak digal ñu la ko les forces de défense et de sécurité nañu def seen liggéey buñ ko mënut nañu màndu ci mbir mi ngi la waay bu ñu dem di ànd ak ñoom di sot nañ ci màndu ndax buñ ci maandu woon benn fan rek benn fan ñoom ak opposition kese ñoom ak askanu Sénégal kese benn demi matine rek mbir mi jeex kon li may wax sénégalais yi en tout cas ñi ma àndal ak ñi sama sympathisant ak ñi bëgg bëgg seen bopp bëgg seen réew kenn ku ne na nga organiser wu nag préparer sa kaaraange bu leen attaque kenn nag bu leen dóor kenn bu leen saaga kenn waaye ku leen song na ngeen jël seen matuwaay assurer seen sécurité ba mu mat sëkk ku leen dóor na ngeen jël seen matuwaay na mu ko defee na ngeen ko defee noona parce que loolu rek mooy solution bi amul beneen solution Macky Sall su dee moom rek ak ñi mu àndal

Et je l'assume devant tout le peuple sénégalais.